benn Bokk Yaakaar bu mbuur di xam le ni ba léegi ñi ñu fal di ay directeurs généraux ak ay ministres ñu ngi leen di seetaan ba tax na dimbalewuñu leen dara ngir ñu am liggéey li ñu mel a tax ñu fas yéene xiifal ci fan yu ñu jëm ni nii Khady Bagey moo yor seeni kàddu li leen seen son excellence jox nañu ci jox suñu wàll nañu ubbi seen téléphone yi suñ leen di woo nañ jël cinq jours yi nga xam ne ñu ngi leen koy may cent mille wala deux cent mille dañoo sonn ci woote boo xam ne boo ñibbi ñun bokk la ne la am paas dëgg la na xam sonn nañ ay cas social lañ grève de la faim la ñuy ndaw yi nga xam ni ci majorité présidentielle bi lañu bokk di xamle ni responsable yi ñu jox ndombal tànk yi taluñu militant yi seen njaboot lañu jiital ci lépp. tey jii ministre Omar Youm tey war naa jàppale département de Mbour man madame Sibi mun naa ne télé laa koy gis wala may Mamadou Dione COSEC moom tamit ñu ngi koy interpeller di leen wax ne lii ñu leen di laaj lu ñu moom la ñun ñoo ko moom ba muy metti ñun ñoo nekkoon sur doon liggéey ñi ñu fal seen jabar seeni rakki jabar seeni famille ak seeni dëkkandoo ñoom rek la jël di leen fal di leen jox ndombay tànk ndaw yi nga xam ni coalition benn Bokk Yaakaar bu Mbour lañu ne di yëgal njiitu réew mi li ñu nekk di dund li ni mel sax a tax ñu laaj Macky Sall ngir mu xayma liggéeyu ndaw ñi ci département bi ngir mu mën di jox ay ndomb tànk ñi nga xam ni jege nañu askan wi ak ndaw ñi RFM Mbour Abdourahmane Diallo